sëñ bi nuyu naa la. waaw ñoo ngi lay fay. tur bi. Abdoulahat Thiaw. voilà nga ñëw fii ci solution ñu bëggoon a xam rek lan moo waral sa teewaay. waaw ñoo ngi leen ziar di nuyu waa solution TV di nuyu Sa Ndiogou ak ñoom Sèye mhm. bu mi fi nekk ñoom ñëpp maa leen ziar yéen ñëpp la jox sa wàcc waay. Mhm. problème bi lii la man dama nekkoon dama nekk benn ndaw. bu mhm. doon liggéey ñu def lu mu am di si dajalaatu gis euh, benn terrain boo xam ne sama benn gara mhm. moo doon jënd terrain mhm. mu expliqué moom ma ñëw jël lu ma am lu ma mën ak lu ma mënul yëpp jëndee ko ñaari terrain depuis le depuis 2009 mhm. ki ñuy wax Babacar Mbaye Kounoun Kounoun la nekk central Kounoun côté bi central Kounoun ma jënd ñaari ki ñuy wax Babacar Mbaye Delta Prime moom ma ko jaay ba ma ko jaayee nag lu mu am si laa ko doon def benn moom ma ko jaay woon neuf cent mille benn bi sept cent mille lu mu am du ci def mm-hmm. deux mille neuf lu mu am du ci def mm-hmm. ba deux mille dix huit ki ñuy wax Mamadou Gueye mm-hmm. ki ñuy wax Mamadou Gueye ancien directeur domaine noonu la ma ko waxee ma ma woowee téléphone mu ne domaine la ne woon ancien directeur waaw employé domaine la ne noonu la ma ko waxee si téléphone mu ne ma dama bëggoon xool kayit yi yaa ngi dégg balaa yi affaire yoon di ci am maanaam kayit yi ma amee yi ma jëndee yi ma jëndee terrain lool moo taxoon muy wax ma ne ko mën nañu toog waxtaan mais ay xool kayit moom mënul nekk lan ban audace wala lan moo waral mu woo la dañ xool këyit. nee moom la dama tabax si si terrain am yi ñu ma jaay te terrain yi euh, ki ma jaay nee na moom société bu ñuy wax euh, polyéthylène moom la ko jaayoon coopérative la comprendre moom nee na euh, terrain yu ma jaay yu leen jaayoon des na sept terrain moom noonu la ma ko waxee man na xaw ma si dara man en tout cas jaay na ma li ma jaay defar naa ko su mm. comprendre terrain bi mm-hmm. si yan terrain bii nii ñu ngi gis image bi bii nii waaw bii nii mooy terrain beneen bi damaa tabax benn bi collecté beneen bi moo nekk nii su ma la déggee sànq mooy que euh, ki la jaay tànn dafa hmm. jaay hmm. jaay sa beneen moroom ki nga xam ne moom moo nekk euh, impôt domaine ki ñuy wax Jamal Xasan hmm. ndax moom mu duggee si boppam moom moo mais après mu gi kayit yi mu njëkk a yu mu njëkk a convoqué tribunal le 6 février turam moom moo si nekk turu Jamal Xasan ak ki ñuy wax Massamba Lamine Ndiaye nekk si suuf mais après ba ma yóbbu ba ñu ba tribunal rajee dossier boobu dafa dugalaat beneen dossier dossier boobu voilà ñuy wax jaman xasan dem ci côté tribinal bi hmm. ñu des ci ki nga xam ne moom moo la jaay terrain moom anam ginnaaw yow ba nga xamee ne am na keneen koo xam ne moom la jaay terrain moom moo ngi yow dem naa nga ci moom dem naa këram du benn yoon du ñett yoon mhm. boo ko waxee danaa ma laat yow laa jaay terrain bi mhm. yi nga yor noonu yi nga tabax ba dëkk si yow laa ko jaay est-ce comprendre xam nga kooku amoon dara looy ñëw ndax yaa ngi toppante ñee tribunal. léegi xanaa waxoo ko ne ko am na keneen ku topp ne. xam na ko ba ma demee si këram loolu moo taxoon ma dem fa. pour ko loolu. Mhm. mu ne ma dañ laa bëgg a jaay doole yow laa jaay terrain bi. comprendre mhm. boobu léegi nag maa ngi siy daw sonn naa ci loolu. Mhm. xam nga ku nekk xale ñu jaay la terrain yàgg sa famille yéen a fa dëkk wala. maak sama soxna ak samay doom. Mhm. ñoo fa dëkk. Mhm. jamono yi may wax ak yow nii. sama soxna ak sama njaboot bu sew. Mhm. njaboot bu jigéen ak benn bu góor. léegi mbir mi. Hmm. jóge ngeen foofu léegi. ki nga xam moo la jaay terrain xam na ni am na keneen ku topp ci ginnaaw euh, ku naan la euh, terrain bi man maa ko moom. waaw xam na ko. Hmm, xam na ko. voilà ngeen dem ci yoon. Hmm. léegi mbirum yoon boobu na la demee ak nan ngeen ci demee. waa mbiru yoon boobu maa la koy wax si commencement bi nee naa la ba ñu demee tribunal le 6 février ba ma plainte ba ma yegg tribunal tribunal dafa raje dossier bi ñu dugalaat beneen dossier boobu mu mu duggee moo ne woon si dossier bi si kaw mu dugalaat beneen dossier bi ku ñuy wax Jamal Xasan dañ naan moom moom Poletilène moo nekkaat si kaw dossier bi ñuy yëg a ko wàcc ba le 15 mai 2023 tribunal ne ñoom ñoom moom ma def appel. tribunal ne kan moom moom. ñoom. maanaam. ñoom beneen parti bi. ok Jamal Xasan ak Mamadou Gueye ak seen conseil ñu ne ñoom ñoom moom ma def appel. mais tribunal euh, lan nga jàpp ne wala nga njort ne euh, yow mi njëkk a jënd ñoom ñu mujjee jënd wala ñoom ñu mujjee wax. Mhm. Euh, ëpp la ci ñoom ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom. man ba ma njëkk a dem tribunal. Mhm. dossier yu ma yóbbu woon ak désection laa yóbbu woon. Mm. comprendre nga. boobu déposé naa samay kayit délibération mais génnagul xam nga xam nga kayit pour nga déposé ko pour mu génn problème la man buñ ma njëkkee attaqué deux mille dix huit laa ne lu ma doon jëldi ko def si kër gi naa wuti ay kayit ndax man dañ ma jaay rek man pour man jeex na comprendre nga mhm. ak déception boobu laa yóbbu woon tribunal moom lañ ma àttee mais ba ma defee appel dossier yu mujj yu mu yu ma mujjee dem appel sama avocat nee na dugal na dossier mooy déliba délibération man ba ma mujjee am xam te ñoom seen délibération mm. délégation spéciale moom moo ci nekk mm. te déggoon naa si benn avocat mu neen euh, délé délégation spéciale amul droit joxe suuf loolu moom ñuy liggéey si yoon ñoo ñoo mu si mën a leeral mais ñoom loolu loolu la waxoon mm. mais seen kayit moo nekk nii avocat moom la mu jox mm-hmm. délégation spéciale moo nekk seen kayit te man maire moo ma moo ma signal papier ak préfecture samay plan ak samay kayit yëpp nga nii dafa leer naññ mhm. comprendre na waaw dafa mujjee ñëw nag moo tax décision yu njëkk yi fekku fi euh, samay kayit yi mhm. maanaam daal dossier yi nekkuloon au complet waaw nekkuloon au ñoom ñu euh, ci première pour man ban tribunal pour man ndax man jàpp ma ne sax ban tribunal la euh, grande instance Dakar jàpp ma sax nga am euh, nga ñëw fekk nit ku dëkk nga indi sa délibération war nañ la see jox ndam pour man koo fekk ndax euh, délibé kii domaine national ku dëkk lañ xam ku dëkk la xam tu comprends ñoom fekk nañ moom mu dëkk te ki ma jaay moom moo leen jaay ñoom njëkk nañ ma wut ay kayit man euh, nekk naa joxoon nañ ma terrain bi ñëw naa di wut lu ma ci am ba fàtte ay affaire u kayit tu ñoom ñoom mag si lépp nag wut nañ kayit sama ginnaaw ba ñëw est-ce que comprendre mais kayit yu baax buñ ko amoon duma am kayit yi. voilà léegi xam naa dañuy retourner waat un peu en arrière pour lenn loo xam ne rek xaw na fudo mhm. en 2009 lañ la jaay ñaari terrain mhm, mhm. Euh, depuis wala ban ban maanaam ban moment wala ban année nga sentir ne ki nga xam ne moom lañ njëkk moom moo nekk deuxième eh, ki nga xam ne lañ ko jaay daal di ñëw. ne man tamit terrain bi ci laa bokk. la ma woo téléphone. ok 2018 la la woo téléphone. Mhm. léegi du coup euh, kañ ngeen commencé dem ci yoon. 2023 euh, bi le 6 février. 2023 mhm. euh, instant bi pare nañ wala yoon pareegul. instant yoon ba décision bu mu mujjee génn. Mhm. mooy appel mu mujjee def. damaa war defaat cour de cassation laa war a dem ak ñoom. cour suprême laa war a def recours. moom moo des instant ordonnance bi génnagul ndax démb laa jóge tribunal waaw loolu nag si moyen moo tax ma ne naa ñëw fii nii ndax ma sañoon kenn du ma xamal su comprendre ma sañoon damay liggéey ma am as néew ma si investir. léegi décision bi démb la génn. la génn. léegi attaqué nga décision bi ma ko moom laa lu mu génn dem moo tax mën na ko ma koo attaqué. voilà mën na koo attaqué. waaw mais sama sama dina dina dina bi lundi. après bu ordonnance bi génnee ñu def recours pour pour boobu pour décision boobu noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. ok léegi ana lan ngay xaar ak tamit nan nga doon fayee terrain yi parce que tamit day baax ñu xam xam da nga joxe set cent mille mm-hmm. liquide ak neuf cent mille liquide wala. liquide lépp laa fay liquide damaa njëkk a dama njëkk a dama dama njëkk a jënd benn bi 2009. 2010 ma fayaat beneen bi. lépp liquide laa ko fay. voilà léegi ki nga xam ne moom moo leen jaayoon terrain bi moom dans tout ça jamono ji mhm. moom maanaam ana mu ak euh, nan lay dundee situation bi nga xam ne yaa ngi koy dund. ah man nu koy dundee moom wax dëgg yàlla. non ba xam yaa ngi koy gis. Mhm. wala non non li ma la wax ne moom laa ko mujjee gis mooy dem naa fa ñett yoon. Mhm. Euh, c'était quand kañ la woon. lépp si entre deux mille euh, la si bañ ma attaqué le 6 février. 2023 bi noonu ndax man damay dem ba après damay mujjee doyal si moom ma ne naa topp décision euh, ñu ñi ma nekkal ndax boobu léegi dem naa si moom mu ne ma yow laa jaay benn yoon du ñetti yoon hmm? moom tamit yoon woolu na yoon gis moom woolu ko kon yoon yéen ñaar kese la waaye ñaar xam ne yéen a seq man maa wuyu ji man ñu man mi man mi ñu plainte mhm. man maa wuyu ji tribunal te yoon waroon na leen ne ana ki leen jaay yaa ngi dégg mm-hmm. eh, mandaté ko pour moom mu ñëw wax ni man la jaay wala ñoom nu mu demee nan la leen jaayee. Mm-hmm. ak kan la jaay ak ak ki nga xam ne moom la jaay la la ko njëkk a jox. waaw a kan la ko njëkk a jaay su ñun mm-hmm. ndax ñoom seen kayit buñ ne délégation spéciale moo leen ko jox 2012 moo nekk si kayit délibération délégation spéciale moom moo leen ko jox. léegi balaa ñoo ñëw ci lu ma gis ci kayit balaa ñoo ñu ci lu mujj lu euh, jamono jii nii euh, kër gi n'est-ce pas ci ngeen dëkk ba léegi. si laa dëkk maak sama njaboot. yaa sa njaboot ba léegi. di mm-hmm. xaar décision finale bi ba xam dañ la koy delloo wala dañ koy dañuy confirmer euh, ki nga xam ne moom lañ ko moom nga ko seqal. waaw moom laay xaar. voilà léegi lan ngay xaar ci Sénégalais yi wala ngay xaar suñu autorité yu yees waaw lu may xaar rek mooy ci autorité yu bees yi mooy mm-hmm. Sonko ak Diomaye. li tax ñu doon rey suñu bopp jug fajar dem woote ci mm-hmm. pour néew du doole yi ñuy xoxotal di leen jaay doole pour mu dañ fi moo tax mm-hmm. mm-hmm. yaa ngi lool moo taxoon mu xëy fajar dem wootee li ci kon ñooñu am naa lu may xaar si ñoom tu comprends ñoo xam ne yaruñu yaruñu titre foncier yaruñu bàyyi di attaquer nit ki ba nar nangu këram si xale bu ndaw boo xamante ni lu mu liggéey sàccul fenul mm-hmm. lépp pour lu mu yoree boppam ak njabootam moo tax ku si xaj ak ak ku ko si yàlla boole mm-hmm. nga ñëw bu koo jaay doole moo tax may sàkku ndimbal moo tax mu ñëw fii nii mais bu ma soñoon du ma mus a génn si tale wala may wax si loo xamante ni ah door ka man la mm-hmm. c'est ma indi nag si li li liñ bi ñu ma indi nag maa ngi siy yàlla waaye metti na ma torop torop ndax lii ma si daj boobu ba léegi di dama ko ñëw tribunal mënoon naa ñàkk ndax bu ñu xooloon ni seen moroomu doom la wala seen moroomu sët la ñoom ëpp alal fop duñ duñ duñ duñ ñëw ak man ba fii nii koo xam ne dañ ne ancien directeur domaine nga kooku war naa doyal suuf koo xam ne dañ ne mooy borom directeur polytechnique kooku ay terrain boo xamante ni bu ngi koy jënd du dara loo xam ne bu ngi koy jënd péage amul dara am tali bu baax amu fa dara amul ñu dem ba lépp ku ba lépp ñëw ñu bëgg maa jaay doole hmm? ba ma koy jënd dara amul du payaas dara dama doon daj lu métti pour dem si terrain hmm? Hmm? ñu xaar ba heure bi bëgg maa indi loo xamante ni kenn xamul lu mu fu mu fu mu fu mu daal wax dëgg yàlla Sonko ak Diomaye man laa ci woo ab képp koo xamante ne mën na mën nañoo taxaw ci décision bii nii mm-hmm. lii day tas yaakaaru jeunesse mm-hmm. ndax képp koo xamante ni gis na lii sax dootul ñeme investir si ay kar yu kenn xamul investir boobu léegi 2009 ba léegi xam ne xaalis boobu ba mu ko investiroon ci leneen yàlla mun naa dogal leneen ak leneen li jural mu ko is mm-hmm. comprendre mais investir ci loo xamante ni yow lii rek nga am ci loo investir ndax moom am na ku ñëwoon sax kër ga koo xam ne mooy si kër ki ñuy wax euh, Massamba Lamine Dieng mu ñëw na léegi nañ toog waxtaan ndax boobu léegi terminal yéeg ak wàcc yi gis naa ni mooy metti na ñu jéem a xool ni ngeen waxtaanee ngeen mu ne ma jox beneen terrain bi bi mu dëkk mu mel ni location vente laa ci nekk. moom kan ma la wax loolu. ki ñuy wax Massamba Lamine Dieng mooy si kër yi moom moo leen di teewal tribunal ma ne ko loolu mënul nekk man mu ancien euh, ancien directeur bi euh, du teew. ñoom ñaar ñëpp kenn du si teew mosuma leen a gis sax. ki ñuy wax Jamal Xasan ak Mamadou Gueye mu nekk si tur bi nekk si dossier bi ñu ma yóbbu tribunal. Mhm. mosuma leen gis. mais dafa leen représenté. waaw ki ñuy wax Massamba Lamine Dieng ngeen waxtaanee ko ci suuf. waaw ba ok. ma ne ko loolu mënul nekk man lu ma investir lépp fii laa ko investir. Mhm. mënu ma ñëw di jël lu ma investir di ko sànni si àll bi mënul nekk. est-ce que bëgguñu woon a wàññi wàcc fay coow li. Hmm? man a ce que bëgguñu woon fay coow li. ah mais fay coow kay mooy nga bàyyi ma sama alal. Mhm. mooy fay coow bu gaaw de. mais ki leen jaay moom mi ngi mi ngi këram. mooy bam kii maam fii Wayemba waaw. voilà léegi euh, kon ma lay jaajëfal bu baax a baax. waaw ñu lay jaajëfal yow tamit. am na solo bu baax a mhm. baax numéro yi xam naa ne dinañ ko affiché. Mhm. ngir képp koo xam ne rek mën na laa ñëw. Euh, jàppale si mhm. mu jàppale la incha allah incha